Euh, du Babacar Ndiaye euh, man maa ngi ci maa ngi bokk ci coordination SAES e bu université de Thiès yàlla dogal na tamit may secretaire général national adjoint bu syndicat SAES e donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay fii tey euh, li ko waral mooy université de Thiès dafa jànkoonteeg ak ay jafe-jafe moo tax jàngalekat yi fi nekk ci dajaloo te bootu ci ginnaaw SAES dañu déposé woon li ñuy wax plateforme revendicative depuis janvier 2020 boobu ba léegi ñu ngi xaar ay tontu yu leer ci mbébét ak sàkkuteef yi ñu laajoon waaye boobu ba léegi li ñu gis mooy dafa mel ni dañuy tànqamlu te tànqamlu bi bu yàggee day yàq suñu université moo tax tey ñu jóg ni dañuy wax ak askan wi liñ doon wax bi ci njëkk mooy yëg ngeen daaw ni président dafa joxe ay postu enseignant muy ñaari téeméer biñ ko séddalee université de Thiès am ci ñaar fukk mu tombe woon nag université de Thiès amoon ñu nit ñaar fukki poste donc boo ko boolee mu war a doon ñeent fukk ñaar fukki poste yi nekkoon ci université bi ñu ngi commencé jël enseignants yi li ñu booleek suñu njiit muy suñu recteur mooy yeneen ñaar fukki poste yi ministère bi joxe mu bañ ni lànk ni duñ ko séddale donc ñe ñaar fukki poste yooyu moom la ñuy wax gannaaw que état bi moo ko créé ñu ngi ñaan ñu recruter enseignants yooyu ci nu mu gën a gaawee ñaareel bi ñu koy laaj mooy université de Thiès. bi ñuy defar ZAC bi état bi daf ko ci joxoon ñetti hectares pour mu def fa ay tabax ñu tàmbali tabax yi am gàllankoor bu ci am mooy taw bi dafa ñëw yàq benn benn partie ci terrain bi ñu toxal tabax yooyu ci beneen bërëb ñu yëg ni ñetti hectares yi ñu joxoon ci ZAC bi dañ koo weccee ak ñaari hectares yu nekk ci domaine national bi mu nekk loo xamante ni daf ñoo jaaxal lool ndax man munoo weccee ñetti hectares yi ëpp nga weccee ko ak ñaari hectares te ñetti hectares yi nga jël ko foo xamante ni dañ koo defar pour nit yi dëkk fa maanaam am na assainissement am na électricité am na ndox nga jëlee ko di ko weccee ak ñaari hectares yoo xamante ni dañ koo dagg pour bay loolu lañ ni ànduñu ci ñu ni madame la recteur na bind ni ànduñu ci ndax loolu suñu conseil d'administration mosu mosu koo waxtaane na bind ni ànduñu ci ba pare yabal ay nit pour wax ña fa ña fa nekk di tabax ni suuf soosu dafa am problème loolu yëpp pour bañ nit ñi fa nekk di tabax jël seen xaalis def ko fa ba pare ëllëg ak si biir ñu leen di génne gis ngeen problème suuf yi am ci dëkk bi fan yi loolu lañ koy ñaan waaye bala ba tey daf ñu koo bañal beneen bi université bi boo ko xoolee ñeenti jàngalekat yoo jël ñett ñi ay vacataire lañ fayum vacataire yooyu dafa nekk loo xamante ni dafa sérieux ndax ñooñu bu ñu jàngalewul université bi taxaw ñu xool depuis ay at ñu ngi am ay problème pour fay vacataires yi ñu gis ni ci université bu ñu jagee lool muy Bambey ñoom réglé nañu problème bi ñoom niñ ko réglé ñu jëlee foofu ñoom niñ ko réglé ñëw ni yaakaar ni loolu ñun buñ ko defee fii cees dana dox moom la ñu ñaan madame la recteur pour mu doxalee noonu payum vacataires yi mu lankal ñu ko donc fay suñu fayum vacataires yi dafa dafa nasax boobu ba léegi te ñun li ñu yaakaar ni moo koy doxal moom lañ ko ñaan pour mu def ko mu mu bañ dafa am leneen loo xamante ne mooy doxal université mooy gëstu muy recherche recherche li koy doxal ay projet la dafa amoon lu fi xew ci université bi mu am fi ku ñu fi tuumaaloon tuumaal boobu ñu ngi ci yoon ba léegi ñu profité ci tuumaal boobu ni projet yi université bi doon doxal yëpp dañ koy arrêté boobu ba léegi ñu ngi jéem a doxalaat projet yi waaye antuwul ñuy ñaan madame le recteur mu delloo projet yi na mu ko fekkoon balaa ñu koy arrêté ngir projet yi mën a dox mu bañal ñu ko ñu ni ko nag ñun nangu nañu sax bés bu ñu delloo projet yi ba muy dox na mu daan doxe boo bëggee mën nañu toog waxtaan ci nan nga bëggee yow projet yi doxee ko ñu tënk ko ba nga xamante ni bés bu ñu ko doxalee noonu projet yi dinañ dox ndax fi ñu toll nii li ñu gis mooy projet yi doxut beneen bi mooy dafa am lu luñ naan voyage d'étude voyage d'étude dafa nekk loo xamante ni enseignants yi dañ koy def ñaari at bu ne pour dem yokki seen xam-xam yokki seen gëstu ñu gis ni université yëpp joxe nañu li war a tax enseignants yi dem voyage d'étude ba mu des université de Thiès madame le recteur bi ñu ko ko laajee mu ni agent comptable bi moo ni ko mënu koo fay ndax dafa jot kayit bu bu ni bu ko ko teree fay mu jaaxal ñu lool ndax yeneen université yëpp fay nañ ko ba mu des cees xanaa loolu day mel ni Thiès dafa nekk ci dëkk boo xamante ni xëy na dafa bokkul ci Sénégal beneen bi mooy tabax yi gis ngeen tabax yi nga xamante ni ñu ngi ci université de Thiès ñu tàmbali yenn ñi depuis 2015 boobu ba léegi mënuñu ko jëfandikoo ñu ñu koy ñaan moom ak kilifa yi nekk ci ministère bi ñu dimbali ñu li laay war a suul yi jox ñu bâtiment yi nekk ci université bi ndax ñu mën a jël étudiants yi ni ñu leen war a jëlee te jàngale leen ni ñu leen war a jàngale ci doolu nag madame le recteur euh, ministre bi ñun ñoo ñaanoon ministre bi ni ko dafa am ñoo xamante ni dañ fi nekkoon di bay balaa université bi di ñëw ñooñu dañoo laaj ñu jox leen ndàmpaay ñun ñu ñaan ministre bi pour mu jël ndàmpaay yooyu ministre bi d'accord na pour fay ndàmpaay yooyu mais dafa am ay kayit yu ñu ko war a jébbal mu sasoon suñu recteur pour mu xool moom ak kilifa yi ne fii ci Thiès nan la ñuy def pour dajale ko këyit yooyu jox ko ko pour mu fay ko këyit yooyu at ngi nii mi ngi koy xaar ba léegi mënu cee jot prise en charge médicale euh, beneen bi mooy fajum jàngalekat yi ak seeni njaboot gis nañu ay rëq-rëq yu baree baree bare yu ci am toog waxtaanee ko dafa nekk lu jaatu te loolu lañ koy ñaan ndax am nañ ay rëq-rëq yoo xamante ni euh, feebar dem faju ji fa ngay faju ji ñu ne la doo fi dugg ndax amuleen xaalis tey day nekk loo xamante ni nit mën mënuñu koo mënuñu koo nangu université yi dafa am euh, euh, yoon bu bees bu ñu war a doxee yoon boobu ñu teg ko ak benn décret bu bees bu génn ci mois d'avril bii passé décret boobu dafa ni université yëpp dañuy soppi ni seen doxalin soppi seen doxalin mooy ñu doon doxalee ak ñi leen doon jiite ak niñ leen doon jiitee dafa war a soppeeku te boobu ba léegi ñu ngi xaar ñu jëmmal ko ci biir Cees gii te ba léegi sottiwul Euh, madame le recteur biñ ko ko mu dee wax newoon nañu ñaari ñu may ko ñaari weer loolu mois août la woon pour ñu may ko ñaari weer mu jëmal ko boobu ba léegi euh, jëmmalagu ko li mujj mooy dafa am lu luñ doon wax audit maanaam dañu ñëwoon saytu ñiy liggéey ci université de Thiès bi loolu 2014 la woon ñu gisoon ni ñu bari ñu fiy liggéey poste yi ñu leen jox méngoowul ak diplôme yi ñu am te boobu ba léegi gisuñu dara dara dara dara lu ci lu ci juddu ñu am nag loo xamante ni université moom la ñuy wax cadrage managérial maanaam li nga xamante ni noonu lañu koy tëralee pour ku nekk ñu teg la fa nga war a nekk ndax université bi mën a jëm kanam ñu koy ñaan balaa ñuy jëmmal loolu nañu defaat audit pour ñu xam ndax la ñu waxoon 2014 ba léegi ma ngi fi ñi nga xamante ni newuñu seen place ñu jëlee leen fa ñi ñu war a ne ñi ñu war a def seen place ñu def leen fa ndax université bi gën a jëm bu loolu wéyee ñu ngi fàttali askan bi ni université de Thiès kenn xamewu ko woon ci ay grève bu ñu demee ba grève tey ñàkk pexe moo tax ndax fii ñu toll nii taloon nañu leneen lu dul di def ay ndaje ak di sumb ay grève ndax fi ñu toll nii ñëpp xam nañ ni njàng mi tàmbaliwaat na dañoo war a baral li ñu li ñu dese ci at mi ndax ndongo yi ñu mën leen a jox seen lijaasa ñu mën a uti liggéey waaye bu ñu toogee tey ba euh, bay sumb ay grève nañu jàpp ni euh, ñàkk pexe la te dafa mel ni dañ noo dañ ñoo dañ ñu ci puus xamuñu nag lu tax xamuñu nag lu tax yii nga xamante ni ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax depuis janvier te ñu waroon cee mën a toog waxtaanee ko mu féete boor boobu ba léegi sumbuñu ay waxtaan pour jëmale ko féete boor xamuñu nag lu tax dafa mel ni xëy na am na ñoo xamante ni Euh, dañuy nasaka nocci ndax université taxaw xamuñu lu tax mais ñun daal li ñu gënaloon mooy ñu toog waxtaanee yii ñu leen doon wax léegi waxtaanee ko euh, ut si ay saafara te weesu ko ak jàmm bu wasalaam donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam nga gréew dafa nekk loo xamante ni boo koy def da nga koy def defum ñàkk pexe mais li ñu seetlu mooy boo fekkente ni da nga séq nit mbir euh, ay nit mbir ngeen di waxtaan da ngeen di nangu toog ku nekk bàyyi dara ngeen mën a avancer waaye bu fekkente ni ñi ngeen ko séqal juróom juróom benn weer ba juróom ñaari weer a ngi nii lañ la waxoon fa lañ toog ni duñ fa jóge dafay mel ni yow dañ lay puus ci nga gerew gerew bi euh, bi ñu defee assemblée générale tey li ñu jàpp mooy gerew bi naam def nañ ko semaine bi waaye semaine bii ñu jëm bu dara soppeekuwul dinañ ko defaat semaine ba ca toppit bu dara soppeekuwul danañ ko defaat waaye li ñuy ñaan yàlla nag mooy ñu am coppite bu baax ci lii ñu laaj pour mën a jublu ci dellu ci classe yi